ndax nit moom koo ko teg rek xam na ko waaye nag ne la ci ëpp solo te gën li mooy ni la dëkk bi ndax kat da fi toogee dana gën ak mu jot yaa ngi def ay taxawaay yu mag yoo xam ne say kilifa ñoo la ko sant waaye wala nit ci yitte la ndax nit kat daañu ko sant dara. kilifaam di ko soññi rek ak di ko fàttali ndax danaa koy dund ni nga ciy defe si itte ba kenn du fàttali dara ne loolu gis ko baax ne kon ak cant képp laa ne ak ngërëm ak di la ñaanal la sunu borom gën laa yokkit sa liggéey ne xam nañ ko sa taxawaay rafet na lool ne li ci firnde màggalu daaw bi nga fi ñëwee damaa ne yi te joxoon la ko yëpp matal laata ngay ñëw di ne kon day dee lu ci ñëw ndax boo defoon fukki ñaar fukk taxawaat ca kanam waaye léegi la joxoon laata magal gi ñëw yëpp defal ko kon nag li fi ñëwaat nag ginnaaw gi ñoo ñaa xaw a a ñëw waaye dara ci waroon daal ci taxawaay ak bu yokku lépp ko kon nag dañ lay bu baax di la ñaanal nit taxawaay bi nga ci def ak itte dina ci def yal na ko sëñ Tuubaa fay ne dëkk bii di Touba kat nit dem jëfal sëriñ Touba pay gaa ngi tege ca sant nañ la bu baax bu ñuy yàlla dimbalee ba ñu ñëwaat fii nii ren ñëwaat xool si li nga xam ne li la président digal pour ñu war ko def ci wàllu màggal ren bii ñu xoolal suñu bët moom balaa mu fiy ñëw ñu xool ndax disposition yooyu yëpp jël nañ ko di yàlla bu baax nag ndaxte bi ma ñëwee lii ma fi gis yëpp pratiquement comité CONAGER bi comité national événement religieux màggal 22 li ñu waxoon yëpp def nañ ko maanaam ligne moyenne tension yu nga xam ne mooy indi courant bi def nañ si ñaar fukki kilomètre ak juróom-ñaar ligne basse tension yu nga xam ne mooy dugal courant bi si biir kër gi def nañ ci téeméer ak juróom fukki kilomètres muy cent cinquante kilomètres léegi nag bu ñu xoolee investissement yi ñu def yëpp pour màggali ren bi toll na ci deux milliards six cent millions loolu nag lu ko waral mooy lu ma wax Touba day màgg màggaay boo xam ne macha allah dafa gaaw moo tax ren bu ñu ñëwee ñu indi poste courant teg ko xëj na déwén si yenn zone yi déwén dootul doy loolu moo tax dañu am lu ñuy wax programme amélioration qualité de service maanaam courant bu ñuy jox mu gën koo defaral ba bu baax respecter norme loolu si wàll boobu nag def nañ ci ñaar fukk ak juróomi secteur yoo xam ne yóbbu woon nañ fa courant bu doy mais màggaayu dëkk bi dafa def ba nga xam ne courant boobu amatul doole ñaar fukki secteur ak juróom yooyu changé nañ leen ba léegi am na courant bu doy ci wàllu lu bees lu ñu indi nag ren ci màggal bi mooy am ngeen Sénégal dafa am ñoo xam ne dañu néew doole te ñooñu lu tax mënuñ am courant lenn rek la mooy amuñu xaalis bu leen mën a dimbale ñu def installation yu soxla seen biir kër ba mën a am courant yooyu nag ren Senelec def na ci benn pàcc maanaam jël na junni ak juróom benn fukk ñett famille yoo xam ne Senelec ñëw na defal leen installation intérieure bi defal leen ay lamp defal leen prise ba pare jël compteur woyofal jox leen pour que nga xam ne léegi ku am téeméer nga mun a jënd courant ku si am ñaar téeméer nga mun a jënd courant donc junni ak juróom benn fukk ak juróom ñetti famille yooyu ku si nekk léegi am na courant mun na mel courant comme ñëpp président def na ñu ñu ci programme yi ñuy def ñu respecter li ñuy wax non seulement équité territoriale mais justice sociale mooy maanaam ñi nga xam ne dañu néew doole te ñu mën leen dimbale ñu dimbale leen loolu daal mooy li nga xam ne ren màggal bi def nañ ko leeral nañ ko sëriñ bi di ko wax mu ñaanal ñu pour yenn accident yu nga xam ne dinay gàllankoor suñu liggéey souvent yàlla musal ñu si di wax tamit ne maa ngi fàttaleku ne képp ku ñëw ne la fay ma xaalis pour ma dépanner la su dee am nga paan xamal ne kooku du agent Senelec Senelec dépannage yu muy def yëpp du laaj xaalis te agent yu koy def dañuy ñëw sol tenue Senelec ñu def ci logo Senelec bi dañuy yore parti Senelec aussi ñooñu duñ laaj kenn xaalis ko am paan da nga koy déclarer ñu ñëw dépanner la waaw mbirum aéroport bi moom lu ñuy wax relation contract commerciale la diggante ñaari structure muy Senelec ak LAS léegi nag démb alhamdulilah ministre des finances abla ministre Abdoulaye Daouda Diallo convoqué nañ man ak directeur AIBD waxtaan nañ ak ñun ba nga xam ne wax na ñu fay ñu suñu xaalis ñu ni depuis démb joxe nañ instruction ndax compte yooyu noonu lu bloqué woon ñu liggéey ko te yaakaar naa ne jot naa message sànq bu ma nekkee si tournée bi sama directeur affaires juridiques nee na ma compte yëpp lebe nañ ko léegi fay nañ xaalis bu nga xam ne mooy facture yi ñu yore woon kon problème boobu nekk na suñu ginnaaw bi alhamdulilah